خاصة صاحب الكتاب سيدي وقرة عيني وقبلة روحي الشيخ صلاح الدين التجاني الحسني وجميع أحبابه والمنتسبين أما بعد فيني يمانتي جنا بلين نيو زيارة لن دلن بالعق نيو يقل فيني خمني فوف لن يمانتي تيرب إن شاء الله moy man euh, jotta bi wessu xikam yi ñu gisoon mi ngi tàmbale woon ci fi mu naan man lam yaarif qadra ni'am bi wujudaaniha aarifa bi wujudi fuqdaaniha képp koo xamante ne xamul maanaam dayo xéewal maanaam gëdd gi xéewal amee ci am gi muy am dana ko xamee saa yoo xamante ne xéewal gi dafa fàddu waaw dañ bëgg ñu tëj parenthèse waaw ñu ubbi ko waaw kon képp koo xamantene xamul xéewal degré daya xéewal bis bu ko yàlla nattoo ba xéewal googu taxu ci dina ko xam mu am benn qaayida boo xamantene mi ngi fi woon mooy man kaana fi ni'matin wa lam yashkur zaalat minhum wa lam yashkur képp koo xamantene dafa nekk ci biir xéewal nekk ci biir xéewal te santul yàlla gërëmu ko ci xéewal googu xéewal gi dina toxu te du ko yëg ah, beneen xikma bi nga xamante ne moom lañ gisoon mooy la mooy ne in lam toxsin zannaka bihi li ajli xusni wasfihi xassin zannaka bihi li ajli muamalatihi maaka fa hal awadaka illa xasana wa hal asda ilayka illa minana ah, su fekkente ne rafetuloo sa njort ci moom borom bi subhaanahu ndax ne moom dafa melowoo melo yu rafet borom subhanahu wa taala maanaam dafa baax dafa tabee dafa yëwén dafa laabiir dafa am yërmande day jéggale et cetera maanaam loolu mooy melo borom bi ba yéeféer sax da ngay gis ne maanaam buñ ko tuddee borom bi rek maanaam bon Dieu lañ koy tuddee maanaam dafa baax daal bu fekkente ne maanaam yow rafetoo njort parce que noonu la mel maanaam loolu mooy qualificatif mooy attribut eh, papa kon na nga rafet sa njo na nga rafet njort ci sa borom hmm. parce que lan parce que manam ni mu yag dufu doxale ak yow est-ce que dafa mës doxale ak yow lu rafet est-ce que dafa mës indi ci yow dox ha ah, tagat ci yow lu dul ay xéewalam euh hikma jallon nañ ko ci jotaay bi wessu danaka taxawon nañ ci sax euh, lu xawa tuti benen xikma bi nga xamantene fofu lañ tolloon moy man lam yashkur wa man lam yashkur ni'amata faqad ta'arraba li zawaliha wa man shakaraha faqad qayyadaha bi iqaaliha kep ko xamantene da nga do sant xewul manam bu dul gërëm xéewal gi la borom subhanahu wa ta'ala defal ku ko dul def koku garal na bopam manam exposé wu na jël na risque yep pour xewul gi tok waaye képp koo xamante ne dafa sant borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa sant xéewal bi bu boobaa na xam ne tënk na ko takk na ko yeew na ko pour du dem allah euh, te ci foofu lañ waxe woon ne sant xéewal maanaam sumum ni ñuy santee xéewal mooy lan ni ñu koy gërëme mooy nga bañ a gis xéewal gi waaye nga gis ci ki jóge mooy borom bi te xéewal gi comme ci borom bi la jógee du nekk lu tuuti abadan ndax ci ki mu jóge moo tax hmm? qalilun minka yakfini walakin qaliluka la yuqalu lahu qalilu xéewal gu tukkee ci yow du tuuti abadan daf may doy daf may doy waaye sax lu tuuti maanaam bu tukkee ci yow kenn du ko tuddee lu tuuti lu rëy lay doon maanaam ndax sa soppe la ndax nangam nangam ba joxe woon nañ exemple euh, gars yi li ñuy signé waa euh, nu mu tuddati yi dañ koy faral di def. Ah, ah, ah. voilà autographe yooyu yi di defalaate bu ñu demee ci <laughs> bu match bi jeexee wala président romb fenn wala autorité pourtant ab signature ab kayit rek la maanaam bind bul sew la ndaw. waaye pourtant dañ koy fonk loolu wekk ko yëkkati ko daanaka du dara du lu nuy lekk du lu nuy naan du luy jariñ dara moom waaye le fait mu jógee ci kooku noonu moo tax mu rëy fi yow ah, ci biir loolu kon na nga xam maanaam qaida bi nga xamante ne moom maanaam maanaam xikma bi nga xamante ne moom moo ci tegoon te ñu gisoon ko mooy anta ma'al akwaani ma lam tashhadil mukawwin fa idha shahidtahu kanat al akwaan ma'ak yow nag yaa ngi ànd ak nekkite maanaam nekk nekk yi nekkite fi féeg lan féeg demuloo bay témoigner di jàkkaarloo di seede ñan lan mooy ki nga xamante ne moo leen nekkal maanaam féeg xam nga monde bi fi nga ne fi nga nekk ci monde bi di gis affaire yeeg yooyu xamal ne nag yow ay matériel doo ngay nekkal ay lan ay mbindeef kese nga nekkal féeg gisaguloo témoigné wuloo ne ndekete ki fi ne mooy ki leen nekkal soo demee ba témoigné jàkkaarloo di contempler ki nga xamante ne moo leen nekkal bu boobaa nag àdduna bi yëpp nekkite fi yëpp ñooy wëlbati ko ànd ak yow maanaam dootul nag yow yaay nekk fi nekk ak ñoom di leen soxla di aaj et cetera déedéet léegi nag ñoom ñooy wëlbati ku nekk ak yow. Euh, mu mel ni ci ma boobu la ñu. Hmm? mel ci xegma boobu lañu ñu yemoon léegi tey xegma bi nga xamante ne moom lañ dugg moom mooy innama wasi'aka al kawnu min xaytu jusmaniyatik walam yasa'ka min xaytu subuuti rawxaaniyatik allah innama li am ba des mooy wasi'aka yaatu na ba matal la ba làmboo la al kawnu nekkiteef gi min xaytu ci anam goo ko xoolee ci ne maanaam ci wàllu gis maa niyatika sag jëmme sag nite maanaam la fekk am jëmm maanaam àdduna bi comme niñ ko gisee loolu jarul démontrer mooy euh, ni ma nekke nii àdduna bi ma gën a yaatu maa ngi ci biir lu dëgg loolu moom mooy li réel mais loolu c'est parce que yow sa jëmm nga bàyyi xel loolu mooy sa jëmm walam yasaaka waaye ye àdduna bi yaatuwul ba ëmb la min xaysu su fekkente ne dañuy xool ci wàllu subuuta saxu roow ruuxaaniyate ka sa ruux si maanaam sa ruux yaatu ga mu yaatu maanaam bu ñu xoolee say mbir ci ko jug ruux rek adduna bi muuru lay maanaam nekkoo ci biir àdduna bi yow sa jëmm moo ne ci biir àdduna bi loolu mooy côté boobu bu ñu ko xoolee bu ñu la xoolee côté boobu mais bu ñu xoolee côté sa esprit ruux bi adduna bi muur la de ëmb la au contraire adduna bi lu tuuti la par rapport ak yow loolu mooy sa côté ruux loolu dina ko développer ah ci biir insha allah mais euh, fii dafa junj réalité wu benn wax yoo xamante ne alquran la mooy bi mu naan la xalqu samawati wal ard akbaru min xalqi nnaasi walakinna ak nnaasi laa ya'lamuun waat naa ni mbind bi ma bind bi yàlla bind asamaan yi ak suuf si ñoo gën a rëy maanaam ci jëmm bindu nit ñi waaye ëpp ci nit ñi xamuñu maanaam li ñu xamul nag du li nga xamante ne moom mooy ne asamaan yi ak suuf si ñoo ñu gën a yaatu loolu mooy ci jëmm mais côté roox bi lay wax ne côté roox bi àdduna bi yëpp nit ñi lu ëpp ci nit ñi xamuñu ne ndekete ñu yooyu yëpp ñu ngi ci biiram moom loolu moom moo tax a nit ki su demee ba am fatxul akbar maanaam ruuxam muy gis ni ruuxam mel ak ni àdduna bi taxawee ci ruuxam loolu moom mooy ngay gis moom lay junj fi mu naan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim maanaam fil afaqi la njëkke maanaam ci gox yi parce que gox yi ñoo gën a tuuti après nga gis nag ni mbir mi gox yëpp adduna bi yëpp univers bi yëpp ni mu taxawee moom ci jëmmam moom en tant nit kon sa ruux du léegi nag loolu dina la développer lu waral loolu lan moo waral ne sa ruux ndekete adduna bi yëpp mi ngi ci biir en fait yow yaay al aalamul akbar yow yaay àdduna bu mag bi bi gën a mag yëpp yow la en tant que nit adduna bi yëpp boo boolee ajjana ak safara sax ci biir malaake yeeg ñëpp yow ci sa biir lañ nekk en tant que nit mais il faut nga développer spiritualité bi pour mën a yëg loolu bu boobaa nag lépp day tuuti ci yow ndax xam nga ruuxu nit incha allah dina ci ñëw ci explication bi mu ne al abdu ya'lamu anna lahu ruuhan min allah hadiyatan lahu duna xalqihi wa lamma amara allahu taala iblisa lissujudi fa innahu lam yattali ala hadihi arruux xatta qaala ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tiin walaw ra'aha la kaana awwalu man sajada ولما كان في علم الله تعالى أنه لا يطلع على سر روح آدم عليه السلام ملك ولا شيطان قال لابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي يعني الجسم فزاده حجابا فوق الحجاب اذ لو كان العرش وما حواه من الكرسي والسماوات في زاويه من زوايا الروح لما احس به بها صاحبها اذ ان الروح مطلقه غايه الاطلاق اما العرش والكرسي والجنه والنار فمقيده واين المقيد من المطلق Ah. mune al abdu jambi bi ya'lamu xam na ne am na lu wér bu wóor mooy loo woon ñeel na ab ruh min allah bu tukke ci yalla lol ñep xam nañ ko ha ah. jam yep xam nañ ne am bu tukke lan ci yalla hadiyatan mu nek hadiya mu nek lan ab kado kado la loo ko duna khalqi wëllif yenen borom bi subhaanahu wa taala ruuxu doomu aadama daf ko wol ci moom mu nekk hadiya muy nekk kadoom waaye deful ko loolu mu defal doomu aadama defalu ko yeneen mbindeef yi malaaka yi ay ruux lañ amee <coughs> ah, njaay àll yi maanaam jur gi ak njaay àll yi rab yi ay ruux lañu ame ah, jinne yi ay ruux la ñu amee rawxaan yi ay ruux la ñu amee seytaane yi ay ruux la ñu amee euh, njanaaw yi njanaaw yi ay ruux la ñu amee njanaaw njanaaw mooy ñoom picc waaw waaw <coughs> euh, voilà ah lépp luy naaw daal moom lañ naan njanaaw ñoom ay ruux la ñu amee <laughs> loolu fekk xam ko dégg nga ah sauf que ruux yooyu ak ruux doomu aadama duñu benn ruux yi ci des arwaaxul makhluqa lañ maanaam ay ruux lañ yoo xamante ne dañ leen a bind créé la amma ruuxu doomu aadama ñoom arwaaxul man fuuxa lañ ruux lañ yoo xamante ne borom bi moo leen wol maanaam moo leen soufflé ci doomu adam mom motax alquran ta junjuna ko bi nan fa wa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin maam adam ngi ni dama koy bind alayhi salatu wassalam su ko bindee ba pare ma wol ci mom sama roh, manam ma soufflé ci mom sama roh. na ngeen ko raxal su ko maanaam dafa am askanonte gu sew a sew gu nekk ci diggante doomu aadama ak borom bi subhaanahu wa taala boo xam ne amul ci diggante boroom bi ak yeneen mbindeef yi loolu mooy boroom doomu aadama moom la def mu nekk xalifaam du ci kaw suuf kese waaye ci mbooleem nekkite fi univers loolu tax malaaka yi mu ne leen xam naa li may maanaam biñ ko euh, euh, atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak lu mu ci teg qaala inni a'lamu ma la ta'lamun borom bi subhaanahu wa taala bi mu ne dafay jël malaaka dafay jël doomu aadama def ko xalifaam ci kaw suuf inni ja'alun fil ardi xalifa lan lañ ko est-ce que dañ ciy def koo xamante ne dafay yàq man yufsidu fiha wa yasfiku dima muy tasare lan muy tour deret di tasare manam maanaam rayante geeg yoyu non <coughs> wa nahnu te ñun malaaka yi kat ñu ngi ni nu sabbihu bihamdika dañuy sabbal ci dila sante sant wala bok dila sabbal sabbal go xamne ga mom sante sant la wala bok dila sabbal sabbal guñu gu ak sante baag yi mën naa tekk loolu yëpp xaala borom bi dafa ni wa nuqaddisu lak ba pare dañu lay selal dila setal ci lépp loo xam ne ak la aku takk-takk la ah borom bi subhaanahu wa taala ne leen inni alamu ma la man xam naa yéen loo leen xam li mu xam te ñoom xamuñu ko ci mooy secret yi nekk ci doomu aadama alayhi salaam bari na bokk na ci ci gën a màgg mooy ne ruuxu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne maanaam moom mooy ruux bi yeneen ruux yépp génnee ah euh, dégg nga euh, euh, am na ku Cheikh Hadji Malick waxatee ci ci ci ci ci xilasa bi ci njëlbéen bi sax radiyallahu anhu lim naan waxala wa xalqul axlaaqi baatul ambiya li zuhurihi muqaddimatun fa'lam wala tanami fi alamil mulki والارواح تابعه للروح والجسم هذا غايه الكرم من ا نلا تابله وخلق الاخلاق بند بي يالا بند منديف ييب باص الانبياء اك يوني يمو يوني يننت يالا نصا لظهوره غير فينو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مقدمه لندن لندن بمبستل لندن laytaayalal faalam xamal li ma la wax wala tanami te bul nelaw feeñ gi bi sallallahu alayhi wasallam doon feeñ fii aalamil mulki ci àdduna bii nga xamante ne moom lañ tuddee aalamul mulki mooy fii mooy suñu àdduna bi fii ba asamaan bi yàlla bind mbindeef yépp avant di créé wu ak ba nit créé woo yàlla yónni yenent yi alayhimu salaatu salaam ñuy ñëw génération yëpp xamal ne dañ doon defuñu woon dara lu dul di laytaayalal di préparer le terrain bi kan sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam li nga xamante ne wal ar arwaaxu ruux yi dégg nga mu xasaf jismu bi taabiatun dañoo topp li ruux yi ñeel ruuxu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam wal jismi maanaam mooy al ajsaamu tamit jëmm yi dañoo topp taabiatun lil jismi ñeel jëmm sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne hada xaayatul karami lii mooy dayok teranga sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy xaqatul muhammad ya moom la borom bi subhaanahu wa taala njëkk a amal ruux boobu nag nga xam ne mooy xaqiqa réalité bu sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy kan dëgg-dëgg ndax nit du nekk lu dul ci réa réalité am nit ki mooy ruuxam mooy zaatam mooy azzaat te mooy ruux bi mooy essence am te mooy ruuxam ruuxu Seydina Muhammad saasam ci la yeneen ruux yëpp balle muy ruuxu doomu aadama yi ci la ñu génnee directement ñu nekk kon muy wol muy suuflu borom bi subhaanahu wa loolu teraanga googu malaaka yi amuñu ko te ñoom xamuñu ko woon ñu jàpp ne ñoom lañu ñu nekk ci ay jaamu yàlla yu rëy ak ay yooyu moo ëpp doole nekk doomu aadama donte mi ngi yàq kay di def et cetera euh, ci ñëw ci beneen incha allah ci xekam yi incha allah ci mooy ci tegu sax mooy ne euh, nit ñi ay catégorie lañ dafa am ñoo xam ne maanaam sa borom subhaanahu wa ta'aala bi mu xoolee seen xol gis ne ñoom attanuñu maanaam yenn manifestation yi divines yi yenn maarifa yi et cetera daf leen a jël consacré leen ci ay jëf ñu julli julli yu bari di woor saa su ne di def ay effort yoo xamante ne zahir la amma ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy borom maarifa yu mag yeeg yooyu ñoom souvent doo leen sax ay gis yu effort yu bare bëri maanaam moo tax sax sooy nekk ak ñoom sax daanaka danger la am na keroog rek yàggul dara am benn mbokk taalibe bu ñu ci doon waxtaanal. maanaam danger la parce que lan moo tax parce que leen di gis mu ñu mel ni defuñu lu bari alors que <laughs> yow nga bëgg a topp seen mu ñoom alors que bokkoo leen alors que bokkoo leen foofu la côté boobu la nekkee danger wala nga xeeb leen tamit defe ne maanaam parce que yow bokkoo leen en fait bokkoo leen fi ngeen di natte fi ñu leen di natte borom bi subhaanahu wa mu ne malaaka yi kon man xam naa loo leen xamul mu sujjóotloo kon ah malaaka yi ak lan waaw ñëpp sujjóotal am na ci tafsir ndeysaan maa ngi dégg shérif bi Cheikh Salah Din radiyallahu anhu muy expliquer ci euh, euh, affaire bi lu kéemaane mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne en fait euh, sujjóot boobu ñu digaloon malaaka yi malaaka yi la tudd mais amul benn atome ci univers bi lu dul dañ ko sujjurloo woon moom Adama ndax mi ngi mel ni comme tey réew mi rek bu bu bu bu président dajalee ministre yëpp ne leen dama bëgg instruction sangam na ko ñëpp respecté daal di koy wax gars yi maanaam mooy waa réew mi yëpp laa bëgg ñu respecté ko maanaam mooy dama tudd ministre yi pour wax ne la ne ñoom à travers ñoom ñeneen ñi leen gën a tuuti ci lañ bokk jarul bu ma tuddee ñi c'est ñi laa respecté loolu bi ne bu ma nee ah lii day moom ku ku ko def képp ku ko def nangam dana la ci fekk ñëpp ma dajale leen rangale leen ministre yi xam nga ni ki yeegul garaatu ministre bokkul ci moom taxul ñuy wax moo tax ñëpp lañ si jot loolu ma amul benn atome ci univers bi lu dañ ko boole woon ci sujjóot boobu loolu tax iblis bi nga xamante ne moom pourtant sax du malaaka jinne la moom affaire bi ko concerné ko te pourtant malaaka yi lañ waxoon maanaam alquran malaaka yi la tudd mais iblis li tax mu concerné ko mooy daa bokk moy mooy ñëpp lañ ko digal won en fait du malaaka yi kese mais borom subhanahu wa ta'ala dafa tudd malaaka yi ndax ño gëna mag ño gëna tedd ah dégg mu ne nak wala ma ba nga xamantene amara digal na allah bur ya taala aji ka iblis iblis li sujudi neel sujot ne mu sujotal mam adam fa innahu li am ba des moy ne kat moom iblis lam ya tali dafa fenkul woon dafa gisul woon ala haadi ruux ci boobu lay ruux iblis li ko en fait yàlla da ko nëbboon ruuxam ruuxu maam Adama alayhi salaam loolu moom moo tax ñoom en fait xamuñu woon ne surtout iblis xamul woon ne maanaam moom bi muy gis moom Adama jëmm ji rek la gis d'ailleurs loolu mooy dal nit ñi ci yeneen yi alayhi salaam ak wàllu yi nitu yàlla yi lan moo tax ñu bëree bëree bëree bëri di leen réere di leen xam du ñu leen xam. ak ñu xam seen gëdd ak yooyu surtout bu ñu bu ñu leen jegee surtout bu ñu leen jegee lan moo tax parce que dañuy gis ñu yor jëmm comme jëmm yeneen nit ñi bu ñu waxee baatu nit doo ngay dégg doo dégg leneen bu ñuy euh, euh, euh, li nit ñiy soxla yëpp ñu di ko soxla li nit ñiy def lu ci bari ñu di ko def mais li tax duñ leen xam mooy ne sirru bi yàlla def ci ñoom ci seen biir la ne nekkul ci biti secret bi yàlla def ci ñoom ci seen biir la nekk nekkul ci biti yaa ngi kon ba mu wax maanaam kon Iblis alay euh, euh, euh, moom gisul woon lool xataa xaala mbete mu wax sooratu saat aaya soixante-seize ana xayrum minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tiin ana man Iblis kat xayrun maa gën minhu ci waa ji maanaam maa gën kat maam Adama alayhi salaam mu ne lu tax mu ne ndax xalaqta nii xoolal xoolal xoolal raisonnement bi xalaqta nii da nga maa bindee te xoolal subhaanallah moo tax gis nga ko yàlla dimbaliwul doo mucc abadan pourtant moom reconnaître na ne yàllaa ko bind du yàllaa ko bind yàlla moo bind kii mu mel nii bind kii mu mel nii waaw bu ko diggalee ne ko sujjóotalal kii bi waru waru koo def xalaqta nii yow bind nga ma min naarin ci tàkk-tàkk wax xalaqtahoo te bind nga ko ah moom moom Adama salaam min tiin ci ban moom jàpp na ni ma kii daal maa ko gën ndax suñu nature déjà da du benn man tàkk-tàkk mooy sama nature ci lañ ma gij bind moom ban lañ ko bind te moom gisul sax ne tàkk-tàkk mais gënul ban <coughs> tàkk tàkk gënul ban mais moom jàpp na ne tàkk tàkk moo gën ban parce que amul lan lan la tàkk tàkk ëppale ban valeur ban sax dañ ciy tabax dégg ñu ciy mën a dëkk ak yooyu tàkk tàkk moom bu ñëwee fii te tàkk tàkk ndox da koy fay maanaam yomb naa fay ndox wa koy fan ban. ban pour nga éliminer ko kooku voilà <laughs> et cetera euh, forme xalaatin bi moom dafa jege lool li ñuy tuddee maanaam racisme maanaam daal boo xësee ba jàpp ne kii nii mu mel ni xëy na maa ko war a gën ndax mom li moy cosaanam man lay sama cosaan xénophobie racisme hein waaw bo di wonte xet façon yoyep la dugg waaw japp ne ki maa ko gën ndax li moy cosaanam té gisunu né wolof yi sax dañ koy wax li nit di gëné nit moromam lan mo ci tegu buy sangu du ko simi <laughs> eh? te te pourtant subhanallah loola tax souvent euh, genre xalaat yi ku ko yor souvent day tardé te du yegg ci boroomam abadan subhanahu wa taala abadan mu jege borom bi ndax bàkkaar bi mu def mooy jëmmi bàkkaar bi iblis def bañu ñu rëbb ko mu ne nag walaw ra'aha bu gisoon ruux manam ruux bi mam bi borom subhanahu wa taala defoon ci mam adam alayhi salam la lataana giñ naan dana nekk moom iblis awwalu man njaal benu ka nga xam ne sajada dafa sujjóot bu gisoon bu mam bu bu bu bu iblis gisoon li nekkoon ruux ba bi mu nekkoon ci mam adam alayhi salam kon moy ndik sujjóot mu wala ma ba nga xamne ne kaana nekk na ilmi ilmillaahi ci xam-xamu yalla taala aji kawe ji anno nak mom iblis la ta'li'u du gis du fek du jakarlo bu xam ala sirri ci mbootu ruhi ruhu Adam, mom adam alayhi salam malakun malaka wala shaytan du caagin seytaane yaa de ah borom subhanahu wa taala ba ma xamee ruhu mom adam kat alayhi salam secret ba ca ne malaaka du ko gis seytaane du ko gis qaala ci la waxee li iblis ñeel iblis naan ko maa manaaka an tasjuda li maa xalaqtu bi yaday maa manaaka ana lan moo la tere surtout saat ba tey ay 75 maa manaaka ana lan moo la tere an tasjuda ci nga sujjóot li maa ñeel li nga xamante ne xalaqtu bind naa ko bi yaday ak sama ñaari loxo yi loo xamante ne man maa ko bind xoolal mu tuddee ak sama ñaari loxo yi ngir teranga tashrifan ak sama loxo yi la ko tuddee <coughs> ah maanaam li muy tekki mooy moo ci def yitte gu jéggi dayoo ak teraanga gu jéggi dayoo ak xéewal gu jéggi dayoo la bindee jëmm ji waxuma laa ruux gi jëmm ji ruux gi moom borom bi la ci boppam moo ko insufflé ci moom amma jëmm ji jëmm ji daf dafa def lu jéggi dayoo ci teraanga ak Hmm? ak toppatoo ah, maanaa boobu ah, defoon nañ ci ak yaatal bu gën a am doole ci bi ñuy ah, ci bi ñuy leeral maanaa yu nekk ci taysiir bi waaw yaataloon nañ ko foofu bu baax alhamdulilah dégg nga maanaam léegi moom kon mu tudd rek ba tey li mu bind waxul waxul secret ruux bi ba tey salaamaaleykum yaa nii mi ngi ciy nam aljisma jëmm ji yaa ngi dégg fa mu yokk ko xijaaban kiiraay fawqal xijaab bi ci kaw beneen kiiraay maanaam kiiraay ga nekkoon ci moom mooy le fait que ah, moom mu jàpp ne moo ko gën ndax tàkk-tàkk ah, ak ban jëndalante gin jëndalante maanaam cim xelam moom looloo tax moom mu yok ko borom subhanahu wa ta'ala yokkaat ko kiray encore manam mu yokk rido voile buy tax ba du xam deug deug kan moy mam adam alayhi salam ak secret bu borom subhanahu wa ta'ala def ci doomu adam deng mu defa ko maanaam mu yok ko lan kiray ci wax ko ne ko ana lan mo la tere manam mu tuddat batay tey gi rek yok di tuddu gi rek jëm ji mo ne is ndax ndax lan lan moo lay sirru doomu aadama kaay ma wax la ko mu ne law bu fekkoonte ne kaana nekk na al arshu arash wa maa xawaahu ak la ko wër gis nga arash mooy arash trône bi xam nga suuf si buñ ko jëlee def ko ci asamaan bu njëkk bi day mel ne benn jaaro bu ñu sànni ci désert bi gis nga ni mu tuutee suuf seeg asamaan su njëkk si suñ ko sonni woon ci ñaareelu asamaan si noonu lay mel ñetteel defal lool suuf si asamaan ñaari asamaan yu njëkk yi buñ bu leen boolee sànni ko ci ñetteel bi et cetera maanaam toppal rythme boobu ba septième asamaan si yooyu yëpp buñ ko boolee woon nag sànni ko ci kursi yu day mel ni tamit jaaro boobu ñu sànni ci désert ah? Ah, ah sëñ bi waxaaleel ñooñu ñu wàññi coow <laughs> président conseil day mooy perturbé conseil constitutionnel waaw ah. <laughs> voilà yaa ngi dégg kon bu ñu jëloon euh, <laughs> bu ñu jëloon kon euh, asamaan si ak suuf si asamaan yi ak suuf si ak kursi yu ak kursi yu sànni ko ci arash tamit noonu lay mel day mel ni jaaro boobu ñu jël sànni ko fan ci désert ànd loolu xoolal li mu wax ànd loolu xoolal li mu wax par rapport ak ruuxu doomu aadama mu ne is ndax law bu te ne kaana nekk na al arshu arash wa ma hawaahu ak li ko war minal kursi ci kursi yi wa samawat ak asamaan yëpp bu ñu nekkoon fii zawa fii zawiyatin ci benn wàllu kese maanaam benn coin zawiya zawiya mooy coin angle ah min zawaaya ruuxi ci zawiya maanaam ci coin yu ruux lama axa sa giñ naa ni du ko yëg bihaa ci moom saaxibu xaw borom ruux borom du ko yëg sax arashak kursi yoog yaa ngi ak la ca des yëpp dégg nga ak la ko wër ci asamaan yeeg suuf seeg lépp lañu la la la la a la mu la la wama xawaaw ak la ko làq boog la mu la mu làq la mu làmbool la mu làmbool yooyu yëpp bu nekkoon ci benn coin ci coin wu ruuxu doomu aadama ah doomu aadama bi du ko yëg ndax ruux dafa yaatu is ndax lan an na ruuxa naka ruux kat mutlaqatan dañ koo boyal gaayatal itlaq day ak dafa nekk lu absolu ruux dafa dafa absolu yaa ngi dégg amma ndaar al arash arash wal kursi ak kursi wal jannatu ak aljana wal naar ak safara fa mu xayyada yëpp dañ leen a tënk yëpp dañoo tënk ay mbindeef la ñoo xam ne dañ leen tënk utal leen ay délimitation ñu limité wu et cetera alors ruux lan amul délimitation ci dara limité wul ci temps bi limité wul ci espace bi amul limite ci dara ajjana safara asamaan yi suuf si malaaka yi jëmm yi lépp dañoo am ay limite fu ñu leen tënk ay ay délimitation ay frontières ay précision ruux amul loolu ruuxu doomu aadama moo amul loolu loolu moom moo tax kon ajjanaak safaraak arashak kursi yoog li ci nekk asamaan yeeg suuf seeg yëpp buñ nekkoon ci benn coin bu ndaw ci coin wu ruux boroom ruux bi du ko yëg yaa ngi dégg ndax lan mu ne wa ay na ana almuqayyad lu ñu tënk minal mutlaq ci lu ñu boyal wa ba wa ma daama al abdu muqayyadan fi sijnil akwaani maxsuuran fi haykali jismihi fal akwaanu xaakimatun alayhi wa huwa yuhibbuha wa ya'shiquha wa hiya tabghaduhu wa tab wa tub'iduhu an rabbih wa huwa yaftaqiru ilayha wa hiya ghaniyatun anhu fa idha shahida mukawwinuha wa ghaaba bi jamalihi anha wa taharrara min riqqiha kaanat hiina idin fi khaadimatihi وهو حاكم عليها وهي تحبه وتعشقه وهو مرسوف بحب خالقها وهي تفتقر إليه وهو غني عنها وهي تحرص عليه وهو زاهد فيها وهي تخاف منه وتهابه وهو آمن منها وفي الحديث اشتاقت الجنة إلى علي وصهيب وبلال والنار تهابه وهو في غيبة وهو في غيبة عنها wa fil xadiisi taqulu naaru lil mu'min juz yaa mu'min faqad atfa'a nuurakal faqad atfa'a nuurukal lahbi maanaam fii dafay am lu am solo lu muy wax te lu mat a bàyyi xel la ginnaaw bi nga xamee bi mu la defalee genre introduction ci sa ruux nga xam yow yaay kan maanaam bala nit daa war a xam maanaam fan la ko boroomam teg par rapport ak maanaam moom mooy kan allah léegi soo xamee loolu léegi jàppal li léegi nag mu ne la wa maa daama feeg mi ngi sax al abdu jaam bi muqayyadan di ku aj ku ñu tënk fii sijnil akwaani ci kaso baa moom mooy nekk tiif yi maanaam nit ki feeg mi ngi tënku nekk koo xamante ne dañ koo tëj ci kaso bi nga xamante ne moom la ñu tuddee lan nekk tiif yi mooy existence yi être yi monde yi gis ngeen kaso la de kaso la maxsuuran nekk koo xamante ne dañ koo dañ koo ndar kepp dañ koo ndar kepp mooy xefaar ah fii haykali jismi yi ci maanaam haykal mooy jeget jeget mooy jeget mooy for kii ờ, silhouette silhouette ci silhouette ờ, jëmmam jëmmam silhouette lan jëmmum fal akwaanu nekkiteef yëpp xaakimatun dañuy tëral àtte alayhi ci kawam maanaam bu boobaa nag luwaawu nature yi nature bi luwaawu mbindeef yi ñooy nekk lan ñoom ñooy à à à avoir raison de lui ñoom ñooy kii àtte kii tëral seen àtte seen àtte mooy daw ci moom. woowu moom nag waa mu bëgg àdduna bi maanaam ak nekkiteef yu bëgg leen sopp tabarkalla ah le monde matériel mooy nekk mooy nekk kii kii mooy mooy tëral àtte ci kaw maanaam mooy juge bi mooy juge bi mais mooy mooy ki dominant mooy mooy buuram bu ko defee moom mu bëgg ko bëgg monde matériel bi nii wa ya'shiquha ba pare ishq euh, mooy mu xër ci ba pare mu xër ci loolu wa hiya te adduna bi boobu jamono jooju tubxiduhu mi ngi koy bañ wa tub'iduhu ba pare di ko soril di ko soril an rabbi wala boromam adduna baa ngi koy bañ mere ko bañ ko sib ko ba pare da koy soril boromam ndax moom daf au lieu mu choisir boromam def ko objectif dafa def monde matériel bi objectif monde matériel bi nag bañ ko parce que moom la bokkaale borom monde matériel bi su ko bañee maanaam mooy nekk te fi su ko bañee dañ ko daf koy soril boroomam nag maanaam moo tax gis ah, ku topp àdduna souvent nga xam te ne yëfi àdduna yi rek moom la bëgg soo foo leen ko fekk ñaare ah, ah, boroomam du ko jaral lu bari waaw boroomam du ko jaral lu bari day sori borom woowu moom tamit mu continuer nekk yaftaqiru aajo woo lool ilay aajam ci yow maanaam day nécessité am besoin bu jéggi dayoo am nécessité maanaam nécessité day jàpp ne. maanaam monde matériel bi dafa nécessaire ci moom maanaam ay mbir àdduna bi maanaam moom moom voilà yaa ngi dégg waxiya te àdduna bi bu boobaa nekk tee fi xaniyatul ña ngay woomal am ku wëllif ko maanaam day gis na ñoom doylu nañ wëllif waa waaye nag loolu mooy su nekkee lan koo xamante ne dafa am attache attachement ci kan ci nekk te fi waaye fa isa shahida saa yu seedee di témoigner màggaay di gis jàkkaarloog mu kaw win xaa kaleen kaka amal maanaam moom àdduna bi nekk te fi wa xaaba mu daal di fàddu bi yi ci taaram an xaa wëllif maanaam ci taaru borom bi subhana wa taala wëllif àdduna bi maanaam taaru borom bi maanaam booteem boote borom bi wa taala mooy màgg ci moom ba nga xamante ne day tax moom lay gis rafetaayu ba tax adduna bi effacé wu ci moom maanaam du am attachement ci àdduna bi wata xarara mu daal di fexe ba gore maanaam mu am liberté min riqiha ci buumu jaam gi ko àdduna bi def parce que adduna bi moom bis boo ko euh, kiwee rek da def jaamam soo ko en fait yàlla mooy ki nga xam ne su fekkente ne toppaloo ko maanaam jëloo ko def ko sa borom moom kese leneen loo def sa borom moom day jël def la moom jaamam da def jaamam te loolu su amee nag kaanat dana nekk nag léegi maanaam su fekkente ne nit ki fexe na ba àdduna euh, bi gisatu ko waaye borom aduna bi la gis mu faddu manam mu nek ko xamantene ne borom bi moko euh manam mom la soxla wo mom la préoccupé wo mom la taaru borom bi rafetaayu borom subhanahu wa taala moko euh, séduire par rapport ba tax occupé wul ci nek ci fi ba para mu goré ci boumu jam bi ko aduna bi narona def jam mu goré ci kaanat dana nekk nag xiina idin jamono joojee boobaa hiya moom nag moom àdduna xaadimatuhu mooy ka koy liggéeyal nekk nag léegi serviteur am nekk as à son service léegi nag àdduna bi mooy nekk service waaji wa huwa waaji nag moom xaakimun mooy aju tëral atte alayha ci kaw àdduna boobaa léegi tendance bi day inversé wu léegi nag waaj mooy nekk kilifa àdduna bi àdduna bi du nekk kilifa mais mooy nekk kilifa moom kilifa àdduna bi وهي أدنى بتحبه مم ويصاب واجي لجي أدنى كوي صاب وتعشقه بفر خرتي واجي خرتي مم وهو تمام نك مشغوف ما أم تفعل بطار بفرد بحب صاب كم صاب خالقها ككوبين مشغوف شغفة موي شغفة موي كم في ااا آه، آه، رسن سيزه mooy bu ñu la tegaloon nii rek benn boolu ganaar ni nga ci mel noonu loolu mooy saxafa maanaam sopp googu noonu so sopp gu tar googu noonu loolu mooy saxafa ah waaw kay yaa ngi dégg léegi nit ki nag bu boobaa adduna bi daf koy bëgg xër ci moom waaye moom lan lay mel moom dafay nekk koo xamante ne dafa sopp xër ci sopp boromam sopp ki nga xam ne mooy ki ko bind maanaam ki bind àdduna bi ba àdduna waaye adduna bi nag taftaqiru ma ngay aajowoo lool ila yi jëm ci waajo maanaam day gis ne waa ji nécessité la mu nekk ci moom maanaam nécessité la ci moom waaye woo moom waa ji moom ghaniyun ma ngay woomal anaa walif àdduna bi waaye adduna bi taarisu taarisu ma ngay xër ala yi ci waaji wa huwa te waa ji zaahidun ma ngay dëddu fiiha ci biir àdduna waaw ah, waa ji ma ngi dëddu àdduna moom wa hiya waa àdduna moom taxaafu ma ngay ragal miir wu ci waa ji wa tahaabu te mi ngi am ak téyu ci waa ji maanaam waa dafa charismatique devant lui moom àdduna bi le monde waaye moom wa huwa aminun mi ngi am kóolute min haa ci àdduna bi ak i loram manam mi am nekk en sécurité par rapport ak aduna bi lolu lolu kon li moy lan li moy ni nga mel xolal ni nga mel par rapport ak aduna bi nga xamne mbir mi contraire bi mooy xew aduna bi par rapport ak yow su fekkete ne da nga bëgg takko ak mom attaché wu sa xol aju ci ha ah, yaangi deg waw lan moy xew xamal ni àdduna bi daf laa bañ dalay soril sa borom subhaanahu wa saa su nekk mu lay xormet di la ah. mooy exemple bi seen Haaj Maalik joxe woon radiyallaahu anhu ci eh, eh, eh, ndaw soosu kafaajiratin yas ar rijaala daa humu naka la ko waxate mooy ndaw su sàggan soosu rek te saay-saay nga xamante ne day mag yewu sol yu gàtt ah yor am néegam génne génnee di di piis gaa yi gaa yi bu ñu déetee mu piis leen gaa ñëw <laughs> bu ñu ñëwee sama càmmiñ <laughs> wax ak ñoom wax yu neex ah waa ñu defe ni moo ci de bu ñu duggee ci néeg bi rek ndekete ab jaasi la yor mu dag bopp àdduna noonu lay def képp koo xamante ne da nga am attachement ak moom da lay séduire de plus en plus nga ñëw rek mu mu éliminer la sacrifier la écraser la jàll ci keneen non numéro yow yow ah yow ah ay numéro rek ngay doon par rapport ak moom maanaam doo moom du la xool comme en tant que nit ku am ruux am ay intérêt am ay maanaam am yu bare bari yu war a aju ci moom déedéet moom du la xoolee bët boobu ah un rek lay wax jeex na loolu mooy tax alors que bu fekkente ne contraire bi moo am nga dëddu ci àdduna boobaa yaa ngi ci biir àdduna bi mais da nga ciy dëddu mooy zahirun fiha li ci nek am nga ko yor nga yu bari et cetera tout ça mais sa xol ki ko bind te xewele la li nek ci aduna mom mo ci nek mais pas aduna bi en tant que tel bu bi da gis nga dalay ragal day day day aajo woo day jàpp ne yow la fekk nga moom ko possédé ko loolu nécessité la ci moom waaw da lay bëgg xemmem la xër ci yow ragal la ba pare nga am charisme par rapport ak moom nga nekk ku charismatique par rapport ak moom wa fil xadis nekk na ci xadis bi istaaxat mu ngay xër di xente woo sopp na lool aljannatu aljana ilaa ali ci wa Suhayb ak wa Bilaal ak Bilaal radiyallahu anhu ñoom àdduna da leen maanaam àjjana da bëgg di xër dem ci <laughs> noonu lay mel waxuma la àdduna waaye àjjana sax maanaam nekkitee fii rek de manière générale nekkitee fii rek <coughs> noonu la ñu par rapport ak moom sabara nag moom taxaabu da koy ragal maanaam da koy day am ak téyu par rapport ak moom woowu woote moom nag fii xaybatin mi ngi ci fàddu an a wëlliif safara moom faalewul sax safara préoccupé wu ci waaye safara moom da koy ragal di ko tiit xam nga tey koo xamante ne moom dalaa ragal di la tiit di la bàyyi xel saa su ne te yow faalewu boo calculé wuloo ko sax woo fi la xadis yi nekk na ci am na xadis tamit bu wax mu ma man xiyaamat bu gaa yi romb di di jaar siraat taqulu day wax annaru safara lil mu'min ñeel aji gëm bi nga xamne leeru ngëm gi da fess del ci mom te moy nitu yalla bu sel bi moy dana ko jus ay way gawal rombu ya mu'min yow aji gëm ji nga xamne sa leeru ngëm fess na del ci yow faqat deug deug at faa ma ngay fay fay na ka sa leer la bii sama tak tak gi sa leer ga ngay fess sama tak tak Allah ah loolu tax nit ki war a looloo tax adduna bi loolu la lay wax yii nekkite fi du adduna bi nekkite fi lépp lu dul yàlla yeneen bi saa salaama nee na asdaqu kalimatu qaalaha sha'ir qawlu labib ala kulli shay'in maa xala allahu baatilu wax ji gën a dëggu ji nga xam ne ab woykat poète mës na ko wax mooy wax bi Labid waxoon radiyallahu anhu moom dafa def 60 ans ci jaahiliya def 60 ans ci l'islam dund 120 ans mu ne alaa waawee yëgoo ma yëgal la ne kulla shay'in bépp mbir boo gis maa xalallaahu loo xam ne yàlla da caa génn baatil loolu caa xam la wala neen la nayaan la moo tax

bu bañ a objektif. sa objectif àjjana safa maanaam lépp ya daal nekk sa objectif ya laay jaamu jamu, mumu bëgg jamu ko dama ko jam parce que mumu mooy borom bi te moom dafa yelloo ñu jaamu jeex beneen xegma bi nga tena mumu moom mooy moo ci tegu mooy day dem ba tey ci volet boobu ci di wax ne nit ñi dañoo am ay différence dañu ay maanaam dañoo différent nit ñëpp yamuñu bokkuñu catégorie qawmun aqaamahumul xaqu li xidmati wa qawmun ixtasahum bi mahabbati qawmun aw nit dafa am ay nit ñoo xam ne aqaamahum taxawal na leen alxaq buur yàlla biy dégg li xidmati yi ngir ñu di ko liggéeyal ñooñu benn groupe bi la dafa am ñoo xamante ne sama borom subhanahu wa ta'ala da leen a xool gis na ñii kat ay la yéwét li mu bëgg ci ñoom mooy ñu di ko liggéeyal di def waaw di def lu baax di julli julli yu bari di woor di ah et cetera di saraxee nekk ci service bi daal liggéey lu bari sama borom ci loolu la leen teg. même voilà même bu ñu dul ay ma maqaama yu kawe sa borom lii la bëgg ci ñoom bu ko defee mu jox leen pay gu rëy àjjana ay xéewal et wax wa qawmun aw ay nit nag am nag ay nit ñoo xam ne ñoom saxum yàlla daf leen a jagleel bi mahabbati yi ci soppeelam am ñu borom bi subhaanahu wa maanaam ñoom seen sirru moo tax nitu yàlla ay seen sirru comme niñ ko waxee sànq fan la ne ci seen biir la ne ci seen xol nekkul ci biti munoo leen a natt parce que kii moo ëpp li muy def ci biti nii munoo leen nattee foofu boo nattee foofu da ngay jum naam yi nga xamante ne ñoom ñooy farata yi dañ koy respecté dëgg la yi nga xamante ne ñoom ñooy lan euh, yu xaraam yi dañ koy lan dañ koy sori loolu moom dëgg la ñoo loolu moom mais yi nga xamante ni fa la ñuy gën a lante ay mbir la yuy nekk ci xol sellal gi leeru ngëm yàlla gi ragal yàlla gi wéer gi ñuy wéer seen lépp ci yàlla muñ gi capacité muñ lu leen yàlla teg ak sant gi ñu koy sant di ko gërëm ci lépp lépp lépp lu xew capacité wéeru ci yàlla jox ko lépp capacité ak sopp gi ñu sopp yonent ci sallallahu alayhi wasallam bu dëggu ak nit yu yàlla yi foofu lañuy ñu rawante jëfu xol yi ak sori surtout musal gi leen mucc gi leen yàlla musal ci jikko yu ñaaw yi ay iñaan ay rëy ay soxor ay xeebaate ay bañ dëgg ay yooyu foofu la ñuy rawante seen jaamu yàlla ci seen xol la ëppee ki ci seen cër yi loolu moom moo tax lu bëree bëri bari bëri bëri bëri bëri ci nit ñi mën nañoo dund ak cent ans ci ay nitu yàlla yu ñu dendal te duñ leen xam dañ leen di ignorer mais totalement sax dañ leen di ignorer totalement parce que dañuy fi ñuy nattee mbir mi moo dul jub مور البحر يغرق léegi mu koy mu ne fal abdu imma huwa min ahli xidmatillah wa imma min ahli mahabbatihi wa ahli xidmatillahi taala minhum qawaamu llayli wa suwaamu nnahaari wal ubbaadu wa zuhaat وأهل المجاهدات ومنهم المجاهدون في سبيل الله وعلماء الشريعة المحافظون عليها الذابون عنها من خمغا خيت ولي ناتورالمون اي خيت خيت خيت خيت خيت خيت خيت خيت خيت خيت خيت خيت duñu benn xet duñu ñaari xet duñu ñatt duñu duñu jooni ay xéeti xet la loolu bokk na ci li gën a tax ba boo bëggee jël nitu yàlla yi nga bëgg leen natt bëgg a xàmmee ne kii façon bii kii nii lay mel ak façon bee nee lay mel da juum soo bëggee tëral àtte rek da ngay juum comme exemple Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu exemple bi mu joxe woon ci Ibris waa ji nga xam ne dafa bëggoon jënd kaye pour énumérer ci maanaam bind ci xeet nitu yàlla maanaam nitu yàlla yi mu xam bi mu demee di jënd kaye bi jënd ci boutique bi kaye bi ba pare kaye bi jaay ko ba pare mu nar a dem mu ne ko déet kaay bul dem mu ne ko ah mu ne ko euh, euh, list bi ngay bind eh, ma ci kanam <laughs> mu génn ci ndox bi ne teg ma ci <laughs> mu dem ba jàtt koñ bi jaaykatu këriñ mi ne ko kaay kaay mu ñëw mu ne bi ngay bind yokk ma ci te moom jàpp na ni ñooñu ñëpp duñ ay wàllu yu mu daal sànni kay man day bàyyi na amul critère boo xamante ne mën nga leen cee natte ñoom ñëpp li nga mën a wax daal mooy am na yoo xam ne bu feeñee def na ko xam mais munoo ni bu feeñul rek duñ ko xam loolu munuñu ko wax seen degré yi ni ñu wutee nag seen maanam façon yi ni ñu wutee dafa am ñoo xamante ne ñi ci gën a kawe ñoom ñooy malaamatiye yi ñoom ñooy ñi gën a kawe ci xeetu nitu yàlla yi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam sang sang yi ci ñooñu la bokkoon lépp ci saxaaba yi radiyallahu anhum ci ñoom lañ duggoon ci ñoom lañ bokk malaamatiye yi mooy ñan mooy ñi nga xamante ne seen li ëpp ci seen jaamu yàlla yi jaamu yàlla yi xol la ci vous concentré wu ni ñu gëmee yalla japp ko dëgër mu ci comme vous jikko yi ma doon wax légui rek sank boko ak le fait que ben objectif lañ am moy yalla ba paré yalla bobu dañ koy jaamu te utu ñu ci dara parce que tout simplement yalla dafa yelloo ñu jaamu ko bu ñu ci charia farata la dafa haram, dañ koy def tout parce que utuñu ci leneen amul leneen nag strictement rien luñ ci wutaat ñooñ ñooy malaamati yi souvent ñooñu nag dañuy làqatu maanaam du ñu leen xam parce que liñ leen lutax duñu leen xam moy ñu souvent ñu leen ñu nit ñi buñu leen gisee dañuy foog ndaysan waaju baax la rek manam parce que lan moo tax parce que duñu gis ci ñoom ayu et cetera ordinaire tamit non plus <laughs> waaw yu len di ci cadre société bi du len lu len di ci cadre nit simple souvent duñ koy faral di gis ci aussi li ñuy ci ñom rek <coughs> moy des ku bax la jeex na loolu tax ñu bari souvent dañuy mel no xamantene tem nga ngañu len sax wala parfois sax ay quelques mépris hein, par rapport à ñom xeeb len et ñoo ñoo gën a dangereux ci xeetu nitu yàlla yi ànd ak ne ñoo ci gën a kawe gën cee gën a jege yàlla ndax ahlul mahabba lañ seen xol yàlla rek lañ bëgg bëgguñu leneen ñu ahlul mahabbati sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam fees dell ci ñoom mooy seen ruux mooy seen xol mooy seen deret biy daw ci seen yaram et cetera sopp yonent bi sallallahu alayhi ñoo leen gënal seen bët ak seen rees yi sallallahu alayhi rees fois ok ñoom ñoo gën a dangereux ci ñëpp parce que dañu gën a dañu gën a naqaree xam benn mais ñoo gën a kawe niveau aussi mu am ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñeneen xeet yi nga xamante ne ñoom borom subhaanahu wa taala da leen a defal maanaam ñu julli lu bari di maanaam jaamukatu yàlla yi daal vraiment xër ci amu yàlla foo leen fekk ñu ngi si kat ñooñu tamit dafa am leer bu leen yàlla wàcce ñooñu tamit ay boroomi niveau lañ parce que bu dul woon yàlla sax gi mu sax ci di leen tëbb ay leer ak ay xéewalam kon du leen defal ñu nekk ci di def lu baax saa ne bu dul woon loolu duñ ci nekk xéewalu yàlla gu rëy lañu amee sof que ñee ñoo leen gën a kawe baax na loolu lay expliquer fii mu ne fala abdu jaam bi imma ndaal huwa moom kat min ahli dafa bokk ci ñooñu xidmatillaahi liggéeyal yàlla mu liggéey rek ci service bi lay ne saa su ne wa imma ndaal min ahli bokk ci ñooñu mahabbat yi nga xam ne ñoom cofeelu borom bi lañ ñoom ahlul mahabbat yi lañ bokk soo xoolee euh, ci Taysiir bi Cheikh El Hadj Malick alayhi ridal daanaka ci ñoom la nekk ñoom la ubbee te ñoom la tëj ci digg bi yëpp seen xaal lay wane mais def ko su forme ñaan boo xoolee loolu moo tax euh, euh, lu yéeme la seen seen ñooñu gaa yooyu. ñu yéeme lañ ahlul mahabbati ahlullahi waaw ñooy nitu yàlla yu mag yi ñooy ahlul mahabbati fële tamit loolu foofu la boo xoolee bi muy jeexal ah sall salatan wa tasliman zara taran ala alhabibi wa alil hibbi yàllaahu après aca mu doog kii mais yu yéeme yéeme la xaalu gaa yooyu la développe ci ci ci Taysir mais def ko sous forme de ñaan maanaam moo tax Taysir bi maanaam da ko si la Hadj Malick radiyallahu da ko codé <laughs> da ko codé da da da da ci def euh, wallahi subhaanallah xamuma dayoo maarifa gu kawe gi si la Hadj Malick am lu dul ci Taysir bi radiyallahu anhu te ci tey siir bi nga koy xamee ngay xamee ni daal dégg kon ñaari xeet yooyu ñoo am mooy ahlul xidma ak ahlul mahabba ñoom ñoo gën a kawe ci yeneen xeet nit yàlla léegi mu ne wa ahlul xidmatillahi ñooñu liggéeyal yàlla maanaam ñi nga xam ne dañuy liggéeyal yàlla taalaa yi kawe ji minhum am na ci ñoom quwaamul layli ñoo xam ne taxawaa koonu guddi lañ ñoom guddi yi yëpp dañuy jàmm yàlla maanaam loolu foofu la leen yàlla maye côté boobu foo leen fekk dañuy naafi la guddi moom duñ ko caaxaan ci la ne ah mais yàlla da leen cee may may gu yéeme yéeme bu jéggi dayam mun na nahaari am ñoo xamante ne moom wooraa koonu bëccëg lañ foo leen fekk ñu ngi woor lu bari lañuy woor altine gu ne dañuy woor lan jeudi bu ne dañuy woor ñetti fan ci weeru yu ne dañuy woor et cetera ñoom côté boobu la leen yàlla maye. ubbi mais côté boobu moom kéemaan lañ foo leen fekk mën nañoo woor année bi ba année bi jeex tàkk duñ ci dog lu dul jour yi nga xamante ne moom mooy jouru lan jour yi xaraama woor. wala ubbaat am ñoo xamante ne xeeti jaamu yàlla yi ci lañu ne foo leen fekk ci loolu lañ. ana ana taala taala taala dafa génn <laughs> waaye waayam ji laa ko bëggoon a wax <laughs> bon sikkar sikkar lu bare bari la ci man <laughs> yàlla daf ci may may ko yéeme yéeme sikkar bu ne man daf ma jaaxal bu ne lay sikkar te xeetu sikkar yu saa su nekk mi ci foo ko fekk temps libre yëpp ci sikkar la koy def day sikkar rek wal baat ak ñoo xamante ne yàlla fi donc ñoom ñooy am ñi nga xam ne dëddu àdduna lañ maanaam dañu maanaam ñii nag zuhaat yi jubluwuñ ci sensu dëddu àdduna bi tax ñuy wax bi ñu doon wax mais mooy ñi nga xamante ne dañoo désintéressé wu ci matériel yi amuñ ci benn soxla ah, yu tout maanaam même ci zahir même maanaam même ci bitin yi voilà dañuy maanaam dañuy da nga leen di gis ñu dem Ah, ah, gars yi bu ñu dëkkee ci dëkk yi ñoom ñu ne nee na duñ dëkk ñoom mënuñoo dëkk ci dëkk bi dañuy dem fële ci àll ba dëkk fa wala yooyu genre yooyu soxlawunoo am dara bëgguñu ko sax bëgguñu sax am dara mu waalul mujaahadaati ak borom coono yu bare yi nga xam ne dañ koy julli maanaam ñi nga xamante ne ay effort yu bare bare bare la ñuy def perpétuel foo leen fekk ñi ngi def ci effort suñu jugee ci ci lii ñi ngi ci lee suñu jugee ci xeetu jaamu yàlla bi ñi ngi ci beneen bi saa su nekk ci loolu la ñu nekk ba pare effort yu dul jeex la ñuy def pour def li nga xamante ne maanaam moom mooy ay xeeti jaamu yàlla wa minhum bokk na ci ñoom ba tey al mujahiduna ñi nga xam ne ñoom ñooy mujahiduna yi mooy ñan les mujahidin ñooñu tamit ay xeet nit yàlla lañu kéemaane parce que li ñuy def yombu la ah oui gaaral sa bopp ci dee moom loolu ku ne xam na ni yombul <laughs> dégg mujahiduna way <laughs> way way way way xare yi fii sabilillah ci yoonu yàlla wa ulama sharia ak ñi nga xam ne ñooy borom xam-xamu sharia yi ñi nga xam te ne tamit xam-xamu sharia rek mooy seen mbir ñoom seen fàll ñoom seen <laughs> almuhaafizuna ñi nga xamante ne ñoom ñooy sàmmoon ñe ñooy sàmmoonte alayha ci xam-xamu sharia bi fexe ba téye koo xam ko azabuna ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi maanaam di ko di défendre an ha wëllif xam-xamu charia bi maanaam ku ci nar a indi lu dul caaxaan rek ñu dajj ku ci nar a dugal lu dul noonu ñu dajj <laughs> amin yàlla yàlla dugal waaw kenn du dugal ci caar cari abi caaxam loolu ci nar a wax lu dul noonu rek ñu daj ko <coughs> teg ne <coughs> yooyu ay xeet la léegi mu am من أما أهل محبة الله تعالى فهم الذين خصهم الله تعالى بمعرفته ومشاهدته وهم كمال العارفين أما أن عندك أهل محبة الله نيجا خمنا نيو نيو نيو صب يالله تعالى أديك أوجي فهم نيوم الذين نيو نيجا خمنا خصهم جعلنا لأن الله أبوري الله تعالى أديك أوجي بمعرفته تيجي خم كوم مشاهدته يعني جا كارلو جا كارلو دي كتير مواني wowum te gaa yooyu kummalul aarifina ñooy ñu mat sikki ñi ci aarif billahi ñi xam yàlla dëgg ci turam yi ci meloom yi di jàkkaarloog borom bi subhaanahu wa lu nekk ñu ci gis yàlla subhaanahu wa taala mat sikk ci côté boobu xaqiqatul muhammadiya ñu maanaam am ci pénétration maanaam dugg ci ci seen xol ci seen xol di ci feey seen xol di feey ci géeju al yàlla allah ak hmm, ak tudd gi allah gis nga ñooñu ah, ñooñu ñoom ñooy nitu yàlla yu mat mooy waa ahlul mahabbati ñooñu maarifa la leen yàlla may maanaam ñuy xam yàlla xam kii loolu moom moo tax préoccupé surtout ci côté bi ànd ak côté bële bu njëkk bi bul ko négliger bul ko tuutal bul ko doyadal mais préoccupé wul ci côté bii côté bii nii <coughs> mais nag mayug yàlla la mayug yàlla dëgg la ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci yoonu nitu yàlla yi ñoom fii la leen yàlla boole ci groupe bi waa tariqa bi ñoom ñëpp fii la leen dugal fii la leen borom bi dugal subhaanahu wa ci yoon bi maanaam euh, mu am lu ñu lu mat a leeral foofu mooy bokk ci groupe bële terewuta bokk ci groupe bi bokk ci groupe bu njëkk bi terewuta bokk d'ailleurs li ëpp ci waa groupe bi am nañu cër ci groupe ba njëkk ba am nañ ci cër lu ëpp ci waa groupe bi ahlul xidmati taalibuuna taalibuuna alxuur wa ahlul mahabbati rufiat anhum sutur allah gis nga léegi muy def différence bi parce que xam nga xàmmee xàmmee ñan ñoo bokk fële ak ñan ñoo bokk fii dafa xaw a jafe léegi mi ngi indi ay euh, mbir yuy tax nga man nga mën a am benn aperçu ci ñan ñooy ñii ñan ñooy ñi mu ne alul xidmati ñooñu liggéey ñooñu ah ndax xam nga ñaar ak alul xidma ma mahabba alul xidma ñoom taalibuuna way sàkku lañ alxuura uurul ay nii ci àjjana ñoom àjjana loolu ñoom loo leen wax rek dañ naan la euh, euh, euh, waaw jaamu yàlla googu moom moom lu ci ne maanaam lan laa ciy amee lan mooy mérite bi yan ngëneel la ame waa lii su ma ko defee nag après lan laay am man maanaam foo leen fekk mooy ñooñ voilà comme comme ni comme voilà comme naa fi le gars yi gars yi di joxe ci koor bi noonu ma gaa yaa dégg naa naafila tay bi ku ko def nangam nangam wa alul mahaba xolo xolo xolo li ëpp ci yi gën yi jaamu yàlla yi ëpp ngëneel yàlla waxul ña lan moo ci am ci fay te ñooy jaamu yàlla yi ëpp ngëneel julli juróom yi amul yan julli juróom yi lii moo ci am ci tiyaaba nangam amu ci koor weeru koor borom bi moom dani sax man maa ko moom maa nëbb asaka aji màkka buñ la ci waxee tuuti lañ la ciy wax mais li ci ëpp ci ngëneel dañ koy nëbb baax na wa ahlul mahabbati nag ñoom rufiat yëgati nañ anum walib leen asuturam kiiraay lépp luy kiiraay rideau bu ndax seen diggante seen borom dañ koy yëkkati ñom loolu la leen yàlla fayee ndax lan sopp giñ ñu sopp borom seen jëfu biti même bu bari wul seen jëfi xol yi sopp giñ ñu sopp yàlla yàlla yëkkati ci raay amul nak ben ngeeneel bu upp doole yàlla ne la maangi sama ngeerum jox naa la ko kontaan na ci moom et cetera yëkkati ki raay sama diggante ak yow ahlul khidmatuhum hum dalil wal buraan wa ahlul mahabbatuhum hum ahlul wal ayan كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا yaa ngi dégg ahlul xidmati ñooñu maanaam mooy ahlul xidma mooy ñu ñu waxoon dalil boroomu lay wal burhaani ah, maanaam dalil tegtal wal burhaan lay dalil ah, ah, argument burhan moy lan moy preuve plutôt burhan moy preuve dalil moi argument ah ah, wa ahlul khidma ñom seen lepp ci argument il faut mu argument C'est le dañuy etc et cetera ci yoy lañ ne ah, ah, où est le dalil hein c'est quoi le dalil ñoo <laughs> ahlul xidma lañ c'est quoi le dalil waa ahlul mahabbati waa ahlul mahabba nag ñoom ñoom hum ñoom kat ahlu suudi boroomu jàkkaarloo lañ allah wal iyaan ak njéebéer yaa ngi dégg waaw njéebéer mooy jàkkarloo ak ñaari bët mooy loo xam ne sax ñaari bët yi laa ko gisee maa ci li la naan ci teg sama bët voilà wa ahlul mahabbati ñom dañuy témoigné yalla ba paré di jàkkaarloo mum ak seen ñaari bët waye ñaari bëti xol motax tax ñu wax du ay bëti yaram yaa ngi dégg kon ñom moy comme liñ la wax ci jotay bi weesu ak yaakaar naa jotaay yu ko jitu amna luñ ci jundjol ñoom bu ñuy gis maanaam lu ñu gis rek borom bi la gis bu ñu gisee xale bi dañuy gis maanaam euh, lewetaayu borom bi du dëgg ah ak yërmandeem ak xanaana gi xanaana xanaana nu mu koy waxee cofeel gi ah, maanaam ñoom melo borom bi ni muy manifesté woo à travers xale bi ñoom loolu la ñuy gis ah ak innahu hadithu ahdin bi rabbihi ndeysaan day doo ko jóge ci boroomam bokkutam ñun mag ñi ñu am attachement bu particulier ak ñoom ndax loolu hmm? buñ gisee kuy gis xool leen ak bët lan la ñuy gis ah lan la gis dañu gis ne boroom baa ngi leen di xool ndax dañu gis ne boroom bi moo mel jël ay meloom ràng ko nit rankolé mindeefam bu buñu gisé kuy dégg lool kaddu guñu dégg wax ji dañuy jappé ne kaddu gu tuké ci borom bi la borom bi mo wax ak mom à travers son bi mu dégg ak langue bi langage bi mu dégg et cetera bu gisé nekk fi melo borom bi lay gis nekk su gisé ku def lu baax par rapport ak mom day gis mbaaxu borom ji manifesté wu à travers kooku jeex na bu gisee ku def lu doy waar wala ku ko mere ko kii saaga ko wax ko lu ñaaw def ko kii day gis jalaalee borom bi rek majesté borom bi rek lay gis ah ne yàlla kat moom moom moom am kattan te du saa su ne li la neex rek kay am man yàlla dama am pouvoir am doole am majesté ma war a accepter li ngay def yow yàlla et cetera maanaam toppal loolu lu mu gis melo borom bi lay gis ñoo ñooy ahlul shuhudi wal hayaan ñoo ñooy ahlul mahabba te lépp lu tukkee ci borom bi ñoom dañuy gis ne lu rafet la lu tukkee ci yàlla rek dañuy gis ne lu rafet la te ci borom bi la jóge kon nangu nañ ko loolu tax ñooñu da gis genre nit lañ yoo xamante ne duñu am ay iñaan ay soxor ay bañeel mbañeel ay xeebaat yooyu yëpp du am ci ñoom duñu am ay euh, ay rëy ay yooyu yëpp du am ci ñoom duñu am ay euh, euh, lan ay ay ay ay ay ay ay takk mer duñu duñu duñu duñu maanaam mer rek di noonu rek continuer loolu duñ ko def <laughs> souvent dañuy gaaw parce que lan la noonu moo tax dañuy gis tout le temps ni borom bi di manifester woo à travers lan mbindee fa mi subhaanahu ñu yàlla dafa loolu ñooñu ñooy ahlul mahabbati allah yàlla sama borom subhaanahu wa taala ne kullan képp kenn nu middu tëbb nañ la maanaam kenn ku ci nekk dañ laa alimenté selon lan ah selon li nga doon selon sa capacité ak selon kii nga doon haula ñii wa haula ak ñee kenn ku ci nekk def na lépp na min ata'i rabbika ci sa mayu borom la jóge lii yàllaa la ko jox wa ma kaana nekkula ata mayu rabbuka sa borom mahzura di luy sa borom subhanahu wa taala kenn mënul tere limu mayé limu joxe di egsi isra aaya vingt mu ne al ubbaadu wa zuhaadu wa al amali wal awraadi aqaamahum alxaqu li khidmatihi hatta salahu li al ljannati wa al mahabbati wal widaadi walsafaa'i wattibaa'i almuraadi hum ahlu xadaratihi fa man shagalathu bi ibadatihi fa huwa fi ridaahu wa minnatihi wa man xassahu bi mahabbatihi fa huwa fi Ah, ñi nga xam ne ñooy al ibaad mooy jaamukat yu ñu màgg ñooñu mooy ñooñu jaamukatu yàlla yooyu mooy ahlul xidma wa zuhaat ak dëddukatu àdduna yi wa ahlul amaal ak boroom jëf yi wal awraat ak werd yi aqaamahum taxawal na leen alxaqu buur yàlla biy dëgg li xidmat yi ngir ñu koy liggéeyal yàlla dafa taxawal ñooñu allah ngir lan ah ñu di ko lan liggéeyal moo tax ñu leen tudde ahlul xidma xatta mbete bu ko defee jusqu'à ce que falaxu ñu yëwén li duxulil jannat ngir dugg àjjana maanaam yàlla da leen a taxawal dogal ci ñoom ay jëf yu bari yu jëf yu baax ay julli ay woor ay werd ay sikar et cetera nangam nangam ah bu ko defee lan ñu mën a yëwén pour mën a lan dugg àjjana waaye wa ahlul mahabbati ndaal boroom cofeeli wal widaadi ak xol bu taqoo ak boroom maam ndax so sopp gu taqoo mooy al wudd mooy cofeel hmm? wudd mooy mawadda attachement wa safa ak sellte wattiba'il murad ak di topp rek namm-namm borom bi li yàlla namm rek loolu laay topp moo tax ñoom dañuy gis subhaana rabbi allah allah allah ñoom moom ñuy ahlu xadarate yi ñooy ñooy ñooñu xadara yàlla boo déggee xadara yàlla bi ñii ñoo ca ne ñoom ay nit lañ ñoo xamante ne seen lépp dañu gis ne rek yàlla mooy réagir à travers ñoom ni ki noonu mooy réagir à travers yeneen mbindeef yi ñoom yàlla leen bëgg moom lañ sopp mooy seen objectif lu mbindeef yi di def maanaam luy mënti xew ci seen kaw ak ci ñoom maanaam ñoom duñ jàpp lu dul ne dañuy topp rek li yàlla dogal ci ñoom jeex na moo tax saxaaba yi radiyallahu ah, de maa julli fa la yàlla dogal ci man ci ay ràkka jeex na yàllaa ma yóbbu ci jàkka ji ma dem ci néegam seeti ji ko moom ci néegam ndax manifestation bu spéciale bu muy def ci foofu ah am ay leer spécial yu mu fay wàcce mais yoo xamante ne dafa bëgg rek ma am ko moo tax mu yóbbu fa moom moo ma fa yóbbu moo fa demee ma julli fa lat manam mom momay mooy julliloo la ko neex ci ay rakka jeex yalla da la may def moom ñom dañuy top mu ra namm namm yàlla yi ñom ñoy wa xadar yalla bi ñom bu ñu xëyee du ñu xaar ana lan la yalla def ci man de parce que ñaari nit ñu am ño xamante ne bu ñu xëyee dañ nan tay lan lay def nek ci lool ak ñi nga xam ne buñ xëy lan la yàlla di def ci man di ma def loolu gisuñu ne ñoom ñooy def yàlla mooy seen objectif ci lañu ne fa man saxaloo képp koo xam ne soxlaal na ko bi ibadati ji ci jaamu ko moom yàlla foofu wa kooku fi ridaaw mi ngi ci ngërëmal yàlla wa minnati ak xéewalam képp yàlla jël def loo ko maanaam topp loo ko mu di ko jaamu na xam ne mi ngi ci lan ngërëmal yàlla ak lan xéewalam waaw man xasaw motax gis nga incompatible wa man xasaw kep ko xamne jaglal nako nak bi mahabbati ci cofeelam mom borom subhanahu wa taala mu bok teul mahabba fo wo ko kat fi fadlin mi ngi ci ngeenel wa ata fi fadla ata mi ngi ci ngeenel may yàlla may khususiyati ay jaglem tout temps mi ngi ci may jagle borom subhanahu wa taala sahibul mahabbati wal mafriqati أعلى وهو في القيامة أغلى مقام العبادة عناء ومقام المحبة عناية مقام العبادة مقام من أراد مقام المحبة مقام المراد ñu ñu am foofu bu beneen yoon ñu yeggale incha allah ah ok